gis koo xamante ni mi ngi yëngu ci loo xamante ni ndax lii am na ñoo xam ne jomb na leen bëgg nañ ko waaye mënuñu ko mm. kon tey bu la ko yàlla defalee ak cant la kon képp ku lay seetaan rek war na cee am bànneex mm. ah mbégte mi ndax bee passé boo dee xool tarixa yi ñu ci ba dañoo dugg si ndeysaan di la ñaanal mm. te loolu ak cant la waaye ñoom it dañoo baax kenn du ñoom maa ngi ñëwaat ci yow macha allah maa ngi ñëwaat ci yow bu ko defee maat lay bàyyi rek ci kanam tuuti nga di xool yi ah ban xas da nga ciy teg wala ban olofal nga ciy tek dal di béggalaat ñi nga xamanteni ñoo ñi seetaan ma di ñëw ci seigne Mara seigne Mara yéen nga bes waye la ta lolu dama lay bàyyi nga présenté wu nuyo ak wa aduna ginnaaw bu ñu sant julli ci bi ñaar mhm. mu fi te xalif général des Baye Fall moom mu yag fi lol non lañ koy ñaané suñu wasila <laughs> sëñ Cheikh Fall Sakour mu yag fi lol momit and ko guer di ziar ñepp nga xamanteni ñu ngi sétan ci DTV di ziar nga xamanteni tamit ñu ngi sétan wa keur kër Moussa nga xamanteni ñom lañ fi téwal tay <laughs> ñu leen ziar bu baax baax ñu la ziar yow mi tamit ci invitation bi ñu la ziar bu baax ndeysaan machallah allah yéen ngi jël initiative bu rafet lo xamanteni da ngeen ko koy defal mom mi

boo xoolee soppe yi am na ñu nekk dakaar am ñu nekk Touba bëri nañ groupe bi bëri nañ waaye initiative bi comme ni nga ko waxee rek daanaka ci anniversaire lañ jëm boo xoolee anniversaire bu luy sabab bi mooy ñun soppe yi ñoo ko taxawal suñu Moussa ndax lu ñuy wax saa suñu ndaw la ndaw lu mat a a jàppale la mm-hmm. ñu ne woon bëri na ay mbir ñuy def waaye ñu ah tout tànk bi kat amul bés kon yàlla na ñun soppe yi nga xamante ni dañuy safoo suñu Moussa mi ñuy bu baax bah baax baax ci xasida kon yàlla na bisu juddoom bu jotee ñu fasiyene ci ànd koog moom tamit di sant bu baax baax baax waajuram bu góor suñu basiru Say mu ñu yombalal lépp moo xamante ni lépp loo xamante ni bëgg nañ ko ci sëñ Moussa bu ñu wax ko rek bu ko defee dañu koy yombalal bu baax a baax a baax ci noonu lañ taxaw ànd koog soppe yëpp waa kër sëñ Moussa yi Touba mhm. fi nekk Dakar tamit macha allah fas yéene ànd ak ñëpp nag ñu jël ki ci ligne bi laataa ñuy continuer وعليكم السلام ورحمة الله dem na xaar bi moo xaw a yàgg ñu ngi koy tuub bu baax ay ca bisimilah. waaw mu mel ne li ñuy wax rek. muy soppe yi. ñoo jël initiative taxawal ko bés. waaye initiative boobu daanaka lépp waajuram bi la ak moom mi ndax luy suñu objectif mooy daanaka taxaw suñu Moussa jàppale ko. daanaka boo xoolee mbir mi structure la ba nga xamante nii ñëpp ci mën a jàpp loo xamante ni dañuy nekk ay daara la war a dara ay ndaw lañ lu ci mel ni ñun lu ci ànd maag soxna mhm. ñoom Baye Djili bëri nañ lool sax daanaka buñ fi teewee daanaka teewal nañ fi ñëpp mhm. teewal nañ fi ñëpp loolu mooy initiative waa Kër Serigne muy taxaw ko jàppale ko lu ci mel ne utal ko ay bés comme lu ci mel ni anniversaire am bi mhm. ak yeneen ak yeneen yi nga xamante nii soppee ñu ngi koy taxawal loolu moo xamante ni mooy liggéey waa kër Serigne Moussa Seye mhm. comme ni nga wax ci anniversaire bi ñu koy wàcc le 28 janvier daanaka ñu ngi koy duppee Serigne Saliou es mhm. ndax ci duppee boobu daanaka moom mi ci moom la jóge ndax daanaka lu ci bëri dañuy diisoo ak moom ci diisoo ak soppee yi ñu ne woon ren nag mënuñu woon ah suñ maara soppe yi ren dama buggoon ñu duppee ko Serigne Saliou mhm. ndax daanaka moo demee bay jàng moom la macha allah ñu ne ñu toog ndax liggéey bi bureau la dañuy toog ñuy waxtaan du ci groupe la groupe whatsapp la comme ni ñu koy am na ay avantage am na inconvénient mm-hmm. waaye daanaka avantage yi mooy lii lu ñu dajale ñun ñëpp bañ mën di taxawal sëñ Moussa lu bëri loolu mooy loolu mooy yéene gi loolu mooy yéene gi bu baax a baax macha allah am na solo yàlla na leen yàlla kàttanal ba ngeen koy mën di ko teewee mm-hmm. ay at yu bare. amiin amiin waaw ndaxte nag kii ku jara mate na ko daal. Mm-hmm. mate na ko. Mm-hmm. waaye it xam nga yenn saa yi nga gis nit am nu mu doxalee. Mm-hmm. nga ne kooku kuy waajuram. wala kooku kuy sëriñam. bu fekkee ne ku dégg sa sëriñ wala ku dégg say waajur xeeb la. am na noo xam ne boo ko doxalee na nga ah, loolu war naa mën a nekk kooku daal waaye it. yenn saa yi nga gis koo xamante ne dina am nu mu doxale wala nu mu xamante ni nu mu jikko wala wala noo xamante ni mooy doxal doxalinam ci àdduna bu ko ñeneen ñi déggee dinañ ne ah war naa mën a nekk mhm. duñ ne acam mhm. kon ki nga xamante ni mooy waajuram ñëwoon na fi mhm. ba ko xool xool ko moom mi xam ne ni muy ni doxalinam ak fi ko yàlla teg war naa mën a nekk waaye tayit ànd naag beneen waajuram woo xamante ni mooy ne toog joxal ma ko micro bi ndax dafa mel ni moom it am na loo xamante ni di yokk nga ko ci ak dundam waaw dafa mel ni yaa koy jàngal alxuraan. waaw auzubillahi mina seytaani rajim mhm. bismillahi rahmaani rahim euh, jërëjëf euh, soxna ma mi mhm. ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu mboolem téléspectateur u DTV yëpp ak ñiy siiwur euh, Zikrulahi bi mhm. di la bàyyi xel bu baax di ñu ñu àndal suñu maara ak sax soxna mama ak euh, sëñ Moussa. macha allah bisimilah. waaw euh, sëñ Moussa. moom mhm. jàmbaar la tut tànk la waaye jàmbaar la. ndeysaan. Euh, ndax xam na li ko war te boo nekkee tout tànk xam li la war rek dañuy jàpp ni jàmbaar ga. Mhm. ndax boo xoolee yi fi wax yépp buñ ko doon natt ci at yi amagul atum mën koo wax. dëgg la kon. loolu moo lay wane ni jàmbaar la. Mhm. waaye nag dañ doon wax ni sëñ Abdoulaye daan wax naan jàmbaar amul ku ñu dimbale. ku ñu dimbale am na. waaw waaye nag yàlla da koo dimbali. Mhm. teel koo soob ci yoon wi am na ay moroomam mhm. yu soobu ci weneen yoon yàlla dimbali leen ca. te xañ na yoon sax gënul waaye seen bëgg-bëgg moo tax yàlla dimbali leen ca. ndax yàlla moom bëgg rek lay xool. moom it li tax suñu boroom dimbali ko ci yoon wi xañ na ak bëggam. moo tax yàlla dimbali ko ci. ba tax yeneen morom tu tànk yi jël yu aw yoonam ndax moom daa am yoon wu jël ñooñu yi ñu ko jël aw yoonam. dëgg la ndax wax na ci waxam ni maa wax ni sëñ Saliou Aïssa mooy idoolam ci jax ak njàngum xas. ci li def macha allah na jël ko ci ligne bi. Mhm. ayca salaamaaleykum mbokk mi. salaamaaleykum. waaleykum salaam rahmatulah. waaw ñu ngi leen di siyaaraat bu baax de. ñoo ngi dolli ziar bu baax noo tudd ak fa ñu Mamadou sëñ Mamadou. ñu ngi leen di siyaaraat bu baax. ñoo ngi dolli ziar bu baax a baax. di ziar sëñ Moussa sëñ Bachirou. Mhm. sunu DG bi toog foofu. ak soxna Ma Fall. <laughs> ñu ngi leen di ziar rek. Mhm. di amaat di bu baax ci invitation bi di ñaanal sa suñu borom gën koo taxaw bu baax a baax. baax a baax laaw ma miin waaw guddal fanam. waaw defal ko wéer moom ay wayjuram yëpp mhm. ak soppe yëpp rek di ñaanal soppe yëpp di leen wax nañ waajal sunu bis bi nga xam ne moom rek lañu am mhm. waaw ñu ngi koy fàttalewaat mbokki taalibe yëpp rek ñu bay ko xel le 28 janvier ci invité tamit waa DTV yëpp ñu ñëw jàpp ci bis bi incha allah sunu bis la waaw loolu moom ñu ngi koy sàkkuwaat ci yéen bu baax a baax di ñaanal mbokki taalibe yëpp rek dellu mhm. di ñaanalaat baax sëñ Moussa dëj lool lool ci jàng bi ak waaw wàccuwaay bi nga xam ne tamit jox na ko xasida yi. ndeysaan la mami waaw di ñaanal sunu DG ki toog noonu mooy daanaka mooy président groupe bi. Mm-hmm. groupe WhatsApp bi ñu ngi koy ñaanal moom ndax liggéeyam wax dëgg yàlla am na solo lool. Mm-hmm. ak soxna Mawar Fall bi nga xam ne daanaka lépp luy wàllu wàññi rek moom moo ko jéem. waaw caare nañ mbokki taale bi yëpp rek ak sunu micro mooy bàyyi jiite. waaw mbokki taale bi yëpp rek soxna Awa sëñ Mouhamed allah kàddu yi am na solo. ñu lay ziar bu baax a baax a baax incha allah danañ ko teewe ndaxte moom moom fi nekk nii nee naa ko yàlla bindalagu la dara loo ñaan mu am. bisimilah. jërëjëf soxna Mamy di jaajëfal sëñ Mamadou Deme moom génn bokk ci soppe yi comme ni ma doon wax rek euh, yàlla dogal na nag ci suñu loxo la nekk ñoo koy jàngal alxuraan. ndeysaan. te ñoo ko yar mën naa ni lépp ci biir kër gi la koy defee. ndax bu la yàlla dimbalee nga judd fekk say wajur nekk ay jànkut xasida. Mm-hmm. nga aw ci yoon woowu rek daanaka la ñoom lañ bëggoon ci yow matal nga ko. ndax euh, boo juddoo fekk say wajur baax ndax dañuy wax ni. alxuraan da naan wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihi walazi xabusa laa yaxruju illaa nakidan nga suuf su teey boo ci jiwee gàncax gu baax ngay am waaye boo jëlee suuf soo xamante ne si boo fa jiwee muy tat ko doo am gàncax gu baax tey nag euh, kañ na yàlla moo ko boole ci gàncax gu baax ci wayjur bu baax tànnal ko ay wajur mhm. euh, muy ci côté wayjur mu góor ak ci wayjur mu jigéen lépp nekk lu baax waaye tamit mu mu tànnal ko tamit eh, ay famille famille bi mm-hmm. mooy nekkul ñi bokkal sax deret waaye ñi bokkal sëñ Tuubaa ndax damay wax ni famille dëgg-dëgg mooñ ki nga bokkal sëñ Tuubaa ndax kooku lu mën di xew lu mën di xew ci kaw suuf di nga ko gis jàmbaar la nag eh, ndax miy góor-góor ci alxuraan ji mm-hmm. xañ na programme yi dem na ba yit ba jattu ko ba fi mu toll nii sax li muy jaar ci daara ji bëreetul waaye nag eh, mi ngi jàng si mi ngi góor taxul nag mu bàyyi ko benn yoon. Mm-hmm. te it ñi mu bëggee al xasida yi noonu la bëggee alxuraan ji. Mm-hmm. te it noonu la mel ci ci ci lépp muy ci wàllu ni niñ ko niñ ko bëggee yaree teg ko ci yoon ndax xale la ba tey eh, li ne ci bopp xale yi day ne ci moom. dëgg moom maanu maam wàllu foog mm-hmm. wàllu bëree wàllu dàqe dina ci xale moo tax yenn saa yi nga gis ko koy def nit nit nit romb ko muy fo wala muy fubal nit taxaw di ko xool di ko seetaan xaj na day yéem lu tax moom ndax moom dina def comme yi wala di fekk xale la yàlla na mu def ko mënta ñàkk mu ñàkk mu def ko mm-hmm. ndax loolu mooy tax sax moom muy mën a concentré wu mm-hmm. ci lim mu bëgg a def mm-hmm. waaye buñ ko buñ ko teg ci yenn niveau yi nii ah moom ko jànqose la mënul def dara waaw ba koo tënk buñ ko tënk waaw <laughs> buñ ko tënk ndax xale boo ko tënkee rek da nga koy sonal ndax li xel mi daa war a ibbeeku mu war a xam lu bare bëri bëri ci àdduna mhm. bi muy doog di jàng xasida sax ñu bëri doon wax naan daa teel a jàng warul jàng waajur waru koo bàyyi muy génn di jàng xasida yooyu waaye xamuñu ndax sëñ ndaw ñi la gën a soxla mhm. ndax ba muy wax dani yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu anil huda wa bil xuloo mistaxilu fastaxilu bil xabsi wa tilaawa wa tani bu ma jal sa saqaawa mhm. kon loolu soxloon ci ndaw ñi mooy fexe ba amuk jub am xam-xam tegu ci yoon wi ba noppi nag fexe ba ba ba maîtriser li ñuy jàng bañ koo fàtteeti ba noppi nag di wattu yenn jataay yoo xamante ne si amul njariñ mhm. te moom mii yàlla dimbali na ko ci côté boobu li ma la mën a waxal di man mii sëriñam di ko jàngal daal mooy mi ngi jàng alxuraan mi ngi mokkal xasida yi te lu jafe ndax boo la ko di mokkal li ngay jàng ci alxuraan ba noppi di mokkal li ngay jàng ci xasida yi xanaa war ma moo tax muy fu muy dem di yóbbaale téere di ko tiim ndax bëgg a barkeelu ci bayit yi mhm. muy tàppe ci jëmm ji leer gi di ko dugg waaye mënoon na koy tari di ko jàng ndax mhm. mokkal na ko mhm. ndax noonu lañ ko noonu la koy jàngale ndax ki koy rafeteel bokkut ak ki koy jàngal alxuraan ndax papaam moo koy rafeteel te ñun ñi nekk ak moom ci biir kër ga xam nañ li muy daj ci répétition yi li muy am complicité diggante ak waajur yëpp bu heure répété jotee papa ji day indi beneen xaar kanam lay indi ngir bëgg mu xam dara kon loolu mooy yitte ñu wax ni maanaam maanaam ñi koy seetaan ak ñi koy mm-hmm. bégg ñëpp ñu xam ne ci yoon wii la jaar teg nañ ko ci yoon wi ñu ko war a teg ñu ngi koy tarbiyee ñu ngi koy jàngal ñu ngi koy xamal lan mooy àdduna te it bëgg nañ mu nekk mu nekk ci bokk ci ñuy gën ëllëg incha allah tey bokk ci ñi ñuy roy ëllëg tamit soxna Mamy. macha allah macha allah am nañ solo am nañ mbégte lool dëgg fa yàlla ci teewaay bi nga man maa la jox sax micro bi sax waaye naroo ko woon ah ñëw nga ndeysaan xam nga am murid rek ndeysaan ak yar beeg teggin bi ab murit ak fa nga xamante ni fa lay tënk boppam saa su nekk waaye am nañ ci mbégte lool ndaxte yéenay suñuy jëwrit donc yéenay jiitu ñu topp seen ginnaaw loolu moom yoonu murit noonu la baaxoo te wax dëgg fi yàlla ñu ngi tuub nag ci ñàkk laa yëgal ne dinañ la jox micro bi sax nag <laughs> soxna mama ziar naa la baax a baax ah soxna mama moom moo yor waañ wi <laughs> bisimilah soxna mama <laughs> bisimilah barkeb maam Seera Fall salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziar bu baax a baax euh, mbokk yi suivre DTV di euh, ziar Serigne taxa Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér. noonu la ñuy ziaree itam suñu buntu ci Cheikhul Khadim. Mhm. Cheikh Abdoul Karim Mbacke moom sëñ Fallou. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ziar soxna mami ak euh, mbooleem ñu nekk fii rek. ndeysaan macha allah yow moom wax dëgg fa yàlla moom it ñëwoon nga fi doo fi gan moom it bu bu yëkkatee turu yàlla wi nga kontaan. te incha allah xam naa du yàgg dara yow it faaw nga ñëwaat fi ñu jàkkaarloo donc ñu ne ñu ngi waaj bés bi le 28 incha allah sëñ Moussa. sëñ xam naa sa numéro téléphone moom du ma ko joxe waaye amaana dinañ joxe numéro boo xamante ni daanaka bële paase joxe woon nañu numéro téléphone mais il faut ñu joxewaat boo xamante ni ku bëgg a ñëw ci bés bi ah dana ca woote pour mën caa ñëw incha allah lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan sëñ Moussa ñemewut ñemeetuma laa laaj projet ndaxte ba ma ba ma ne laa lan mooy say projet lan mooy sa lan mooy sa mbébét. danga ne man sama sama mbébét mooy teral sama ñaari waajur ah loo am jox leen teral sa papa jëndal ko kër gu rafet ak oto bu rafet ah teral sa yaay macha allah euh, loolu moom dañ lay ñaanal yàlla na la ko ku tedd ki defal léegi sa kilifa gee amaana wax na ci des fois sax xelum xale mi dina ñëw mënta ñàkk mais fi nga nekkee ku fa nekkee amaana waaw cër bi loolu forcé lay doon waaw nit ñi ñu ci bari bëgg nañoo xam sëñ Moussa bu nekkee seen kër nañ lay dundee ah sëñ Moussa ndax chaque jour baylaat lay sol chaque jour baylaat ngay sol. yenn saa yi ma sol yére olof. saa yi nga sa yére olof. Hmm? daal di daal di daal di def ko def comme sa yëfu yëfu xale yi daal. <laughs> macha allah noo fa yow faa mu ñëw seet si la toog ak yow waxtaan ak yow def jour journée seen kër xool sëñ musa nan lay dundee ak seen waa kër ndaxte macha allah ndaxte ku la déglu nga wax na xam ne kii ay mag ñoo ko séq. te loolu am solo la. balaa boobu ñaan nag ñu la séq. fi yàgg te ànd ak wér bisimilah. Mhm. balaa maa ngi ziar bu baax sama papa ma ñaan. Mhm. ndax moom daa nekk nit ku baax. ndax moom su ko neexoon mu toog ndax moom chaque jour day ñëw suñu kar di ma nemmeeku. di ma gën a sonn. Mhm. maa ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal bu baax suñu borom yokk ay xéwalam. ba lépp loo xam ne mébét na ko rek suñu borom eggaleel ko di ziar bu baax tamit. sama papa sering bakin jai Minister, mhm. mang ko ziar bax mhm. ndax mom ko bax la. ndax fa gu tol nonu do tax moy yak ay ligeyam ndax mom chaque jour damay nemeku di ngay terangi beuri di ma nemeku chaque jour moo tax mang koy ñaanal bax lepp lo xamne bëgg nako nek ci inshallah allah rabbi suñu borom defal ko ci barke do tuba ziar bax tamit sama yaay ndéegéey mang koy ziar bax mom da nek nit ko bax mom woyof lool ndax moom nekkul nit ñi nga xam ne day yëkkati koog yooyu. Mhm. moom daa nekk nit ko oyof ku baax day nekk taal bi nag. Mhm. maa ngi koy ñaanal baax moom tamit si boroom dëgëral ko kàttanal ko ba lépp loo xam ne. bëgg na ko am ci yoon wi rek suñu borom defal ko ci barke borom jërëjëf. macha allah euh, bés bi incha allah le 28 nan nga bëgg mu tëddee ko programme bi nan nga ko bëggee ak ñi nga xamante ni ñoom nga ci woo muy jàngat xasida yi nga xamante ni amaan na yéen a bokk lu leen di def ah, ak ñi nga xamante ni amaan ay kilifa lañ te yaa ngi leen ciy woo bés bi bisimilah. waaw bis moom maa ngi ciy woo ñëpp. Mhm. ndax bis moom nekkul ne ñun mhm. ñu koy woo ñëpp képp koo xam ne yaa ngi dégg sama kàddu rek maa ngi la siy woo képp koo xam ne yaa ngi wax asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullah maa ngi lay woo ci li nga xam ne mooy bis bi mm-hmm. di si woo jànkatu xas deeg mm-hmm. jànkatu alxuraan yi képp koo xam ne yaa ngi yëkk pour yàlla yi rek maa ngi la ciy woo macha allah kon daal képp koo xamante ni rek yaa ngi toog jàkkaarloog jëmm ji ñu ngi lay dagaan nga ñëw amaana nag lu baax moom kenn du ci forcé kenn mm. ndaxte yoon wi moom am na tàmbali waaye amul xaare mm. ah waaw uh-huh. ñëw leen jariñu rek la de ñëw leen ñu tuddal leen yàlla ngeen daal di bég yéen tamit ngeen bég bu ko defee ah <laughs> mbégte bi daal di gën a saawaan baawaat am nañ mbégte lool ci dalal la yow moom duñ doyal ci yow te fii doo fi géej incha allah bu dee may may borom plateau bi ay ca bisimilah bu ko defee rek ngaa di joxe numéro téléphone boo xamante ne di nga ko yaatal ak euh, programme bi ban heure lay commencé waaw ngontu xasida lañ koy def ngontu lay doon incha allah waaw daanaka nit ñi dinañ fa ñëw yendu si. Mhm. ñu si yenn sopp yi jugee Touba ñu ba Tamba dinañ ñëw yendu ci bis bi. incha waaw ndax programme bi ni muy demee daanaka ngontu xasida la. Mhm. tàkkusaan lay tàmbali jëm guddi 23h ba minuit. ndeysaan. ñu ciy woo ñëpp nag. Mhm. ñëw jàpp ci bu baax a baax a baax a baax. ndax day yëfi ñëpp. ndeysaan ñun amaanaan dañuy def loolu di ci barkeelu ndax moom ndaw la daanaka ñoom sëriñ bi. moo leen téyel boppam. kon lu ñu def lu di barkeelu ndax waa Kër Moussa initiative bi loolu kese la. Mm-hmm. muy taxaw ko ci fànn yëpp. ndeysaan moo waral ñu taxawal ko anniversaire bi. Mm-hmm. moo waral ñu ci woon ñëpp ngir ñu ñëw jàpp ci numéro yi nag euh, ku ci bëgg a ñëw da ngay contacter 77 747 08 36. wala nga woo 77 573 24 32 moom mooy Baye Djily Seye mooy secretaire général bi bu ko defee képp koo xamante ne yaa ngi bëgg a ñëw ci bis bi bu ko defee dinañ la tegtal. ak képp koo xamante ni bëgg naa barkeelul tamit ci bés bi mën ngaa woo 77 315 93 10 muy waajur sëñ Moussa. ndax structure bi moom daanaka wàllu boobu moom moom moo koy gérer. ndax ñu def lu organisation. ak taxaw sëñ Moussa. macha kon ñu ngi ciy woo ñëpp képp koo xamante ni nag yaa ngi ci bëgg ñëw bu ko defee affiche yi ñu ngi ci YouTube bi ñu ngi ci Instagram bi fépp partagé nañ ko fa. bu ko defee lépp loo xamante ni nag aju na ci bis bi. dinañ leen ko ci leeral bu baax a baax a baax a allah man daal li ma lay ñaanal xam nga lu mu doon maa ngi lay ñaanal fépp foo xamante ni ku tedd ki mës na faa jaar ci loo xamante ni dañoo jubluwaay wi safaan la woon maa ngi lay ñaanal yàlla nga fa taxaw di fa yëkkati xas daam yi. Hmm? ndax su sunu ndam lay doon. yaa ngi tey sëñ Moussa def tournée internationale. Ah, ñu lay seen fu nekk macha allah ndax boobaa it ambassadeur nga nga ci ñun. te loolu sunu teraanga la sunu fierté la. Uh-huh. ngay taxaw fu nekk di yëkkati xasdaay sëñ baam Bamba yi. Uh-huh. bàyyi nañ la ak Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul uh-huh. di ñaan kilifa yëpp nag bu dee yéen koy seetaan na ngeen ko ñaanal yàlla na ko cat seexlu ndaxte nag cat moom bu rayul semmal kon ñeneen dañ lay ñaanal yàlla nga waaw jasa dootuñu la ñaanal ba banañ laak banañ laak sëñ bi <laughs> bisimilah. daanaka eh, naam ko laaj sànq maam sëñ Moussa ni muy ni muy dundee ci bis mi. Mm-hmm. maam ci ci journée def nañ benn documentaire boo xamante ni incha allah ku ñëw ci bis ba di nga xam suñu Moussa ni muy yendoo ak maam ba xam day sol baylaat day football wala day def leen képp koo xamante ni di nga ñëw ci bis bi incha allah. dinañ ko projeté bu ko defee di nga xam lépp ci sëñ Moussa. ndax waa kër sëñ Moussa Seye loolu la daanaka dem na ba am télé. Mm-hmm. lépp pour sëñ Moussa. spécial sëñ musaa ku ci bëgg rek di nga ko suivre YouTube Moussa Seye l'officiel bu ko defee lépp loo xamante ni bëgg nga ko xam ci sëñ Moussa. boo dugee foofu rek di nga ko fa seetaan bu soobee yàlla. macha allah noonu lay demee. macha allah xam nga sëñ Moussa moom wax dëgg fa yàlla nag yaa tooñ sa bopp ndaxte yow yaa dugg ci xas dëy <laughs> moo tax nit ñi faaw ñu lay gëstu faaw ñu lay woo ci télé yi faaw ñu lay woo ci rajo yi loolu mënut te ñàkk. Hmm? waaw yow it ñu ngi lay ñaanal kàttan rek boo xamante ni fu la waaye ne kar rek nga koy wuyu. Hmm. ah ndaxte sëñ bi rek ngay demal fépp foo toogit sëñ bi nga fay toogal. na hmm. la yàlla defal jàmm.